asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci bi di sant sëñ Ahmadou Sougou ibnu sëriñ Maam ibnu sëriñ Ahmad Tasrif Sougou moom sëriñ Jéeri Waadaan Sougou di wax sang bi jërëjëf ñu ngi lay santaat bu baax a baax a baax ci turu diwaanu lamp sëriñ Jéeri Waadaan ci diwaan bi yëpp ñu ngi la ci sant bu baax ah sang bi di sawarit ci question yi nga xamante ni laaj nga nu ko ren nag màggal gi moom dafa ala me ndax daanaka ñi ngi ci fukki at ak lu topp ndax ba nuy tàmbalee di màggal fii suñu ama tasrif daanaka boobu ñun ñëpp amuñuy soxna te tey jii ñi ngi ànd ak suñuy soxna di ñëw ak njaboot gi ban ko ban koy def ginnaaw ba ko sëñ bi defee lu toll ci juróomi at ca Italie di ko fa def su nekk culturelle Serigne Jéeri Waaran boobu ma nga féete bitim réew ba nim ñëwee nuy ànd nekk ay tuut tànk yu ndaw di topp ci ginnaawam di ko def tey jii nag moom comme ni nga ko laajee xéwal it macha allah diwaanu lamp Serigne Diéry Wadane bépp teew nañ fi ci ginnaaw Cheikh Amadou Tassirou Sougou daaneel nañ fi nag toll nañ ci fukki gàtt de ci ay xar ak ñeent fukk ci ginaar lépp ci baax ak ndigalu sëñ Amadou Tassirou Sougou mi nu ci àndal lépp it ngir def ko ngir maamam ju tedd ja kon donc loolu daal mooy li nga xamante ni ci leen tàmbalee. Euh, yu bokkut ak xeetu euh, fruits yi nga xamante ni it indi nañ ko fi xam naa incha allah après danañ àgg ànd jébbal ko sëñ bi euh, di ñaan suñu borom ci déwénee mu dàq ren. waaw daanaka xéwal yi nag day gën di yokk waaye toll nañ ci fukki at lu top suma ma benn baa ñaar ban tàmbalee ñëw di def ab tante di ko di ko màggal ndax boo seetee diwaanu Lamp Serigne Jéeri mooy mbooloo mi nga xamante ni ñoo njëkk a taxawal xayma climatiseur fii ci Waadaan samp ko fii di ko woote boobu ay ginaar lañ tàmbalee yu ndaw tàmbale wuñ sax lu mat fukki ginaar di xool euh, ci mbokki taalibe rek nu koy xewloo ba tey jii nu àgg ci ay fukki gàtt lu topp kon daanaka yokkute gu baax a baax a baax lañ ci gis. Euh, sëñ Amadou ginaar bi nga xamee ni mbooloo mii di diwaanu lamp ñëw nañu ñu gis teraanga ji nga xam ni itam moom lañ fi indi. ci li ñu gis ak li nga xamee ni tudd nañ ko ca gisaguñu ko yëkkati ay kàddu yu am solo it ànd ak yow ci liggéey bi tey yan kàddu mooy jóge ci yow jëm ci ñoom. ok salaamaaleykum wa rahmatullah waa sëñ bi li nga ma laaj macha allah am na solo waaw ñoom de xanaa di leen sant rek waaw di leen gërëm ci jëf jure ji nga xamante ne jëf nañ ko waaw manees nañ leen a sant waaye manees nañ leen a bañ a sant tamit nag ndax loo moom moom kenn du la ci sant. te bis bii moom ñoom ñii fi indi teraange yi mën na maa wax ne ñoom ñooy borom bis bi ndax euh, yaakaar naa ne seen maam seeni maam liñ jëf ci màggal gi kenn jëfu ko ci ko ñoom bu luñ ci def rek daanaka dan naan leen waaw góor rek waaye jëruñu leen ciy sant ndax boo xoolee ñoom ñii fi nekk ñépp ay sët lan te seeni maam a fi nekkoon di def lii seeni jur ñëw fi ànd ko ak sunuy wayjur def fi lu ne teraanga yu ne ñu indi ko fi seen i jur ñoom ñii euh, benn ci kii seen wayjur la ndax seen mag baay la muy sëñ Pam Ñang mii lii rek firnde la ci moom seen yitte yëpp daan la seen yitte yëpp màggal gi la kon dañ leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne lii ñu def seet na sunu xol euh, tax na tamit ñu gën a am yaakaar bu baax a baax ci ñoom ndax xam nan xam nan leen am ñoom bëgg nañ ko tamit te xam nañ ko ndax xam nañ ne ñun ahlu Waadaan surtout waa Kër Sëñ Ahmad amuñu lu gën a rëy bis bi ñun bis bi rek lañu am muy bisub màggalu ñaar fani koor gi kon bu ñu yëkkatee taraange yi indi ko fi ah loolu dañ leen ci sant di leen gërëm te di leen wax na lii dooru tey comme ni mu ko waxee man na fukki at ci ren wala fukki at ak ñaar yoo xamante man ak ñoom ñi ngi ko ànd di ko màggal ñuy jëlee ay baas yu seer di ko indi fii ci kër sëñ Maama Soga yi rek fi baas di ci def seen i climatiseur di indaale seen i rajo te ay tuut tànk leen ban koy def booba ay gën di tuut tànk leen comme ni mu ko waxee booba dencaguma ñoom ñi kenn dencagu ci tey jii ñoom ñëpp a ngi ñëw di àndaal ak seen i soxna fekk fi sama soxna macha allah kon loolu loolu lu baax la waaw dañoo nekk ci leen war a nekk te li nekk tamit day dëgg. waaw li nekk day dëgg kon bu ko defee bis bi noonu la demee waaw ñoom daal dina leen sant di leen gërëm di leen xamal ne lii daal moom kontaan nañ ci lool te amuñu lu dul bis bi waaw bay boo lun mën a jàpp surtout ñun waa diwaanu Lamp Sëñ Jéeri ñun dañoo amul lu dul Sëñ waa daan waaye amuñu lu dul Sëñ Ahmad Tasrif te Sëñ Ahmad Tasrif nag bis bii moom mosu kaa yemaleeg lenn kon ñun duñ ko yemaleeg dara lum ñu mën a fekke ak lun mën a yor ci bis bi lañ koy yemale moom bu nekkaat ci laneen waaye ñu yàlla moom bis bi ñëw ñuy denc dara suñuy poos ñu am lépp ci bis bi lañ koy yemale ndax bis bi day bisum ndigal bisu ndigal nag kenn du ko jaaxal surtout ndigalu sëñ tubaa sëñ tubaa ndigalam kenn waru kaa fowe bis bi nag day ndigalu sëñ tubaa moo tax luñ ci man danañ ko ci def ngir tere bis bi ngir war maanaam njukkee la ko sëriñ tubaa xaadim rasul ndax sëñ Ahmad Tasrif moom bis bi rek la amoon